Jakarta yi ñooy manifesté wu parce que dañoo def dóor police Fatick ñoo dóor benn borom Jakarta ba rey ko léegi seen Jakarta yi rek dóor bi riposté wu moo tax waral ñu yëpp vous avez vu déjà à Fatick ça se passe très mal jaajëf eh, ñoo fa gisoo gars yi ñu ñëpp a ngi ñëpp a ngi ñëpp a ngi di manifesté boo yaa dëkk baa ngi toj de waaw kay lii de moo xew ci dëkk bi tey lii moo xew Fatick lii de moo xew lii xew Fatick tey wutu gaale Macky Sall lay demee nii ah man de damaa tiit gis Jakarta yi ñooy manifesté wu parce que dañoo war a dóor police Fatick ñoo dóor benn borom Jakarta ba rey ko léegi seen Jakarta yi rek dóor ci riposte wu moo tax waral ñu yëpp day vi déjà à Fatick ak pas vraiment eh, jaajëf ñoo fa gisoo gars yi ñi ñëpp a ngi ñëpp a ngi ñëpp a ngi di manifesté boo